bokki xarit yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot comme ni ma leen ko diggee woon sànq ci ngoon ma am yéene di kaa teg yéen ngir ñu seq waxtaan waxtaan boo xamante ne nag dafay ñeel mbiri Pape Alé Niang euh, parce que dafay jaadu léeg-léeg bu mbir amee ñu taxaw ci indi ay leeral ci li nga xamante ne bii moom moo jot a xew Pape Alé nag comme ni ngeen ko xamee jaayoon nañ ko doole dugal ko ci kaso mu njëkkee ci kaso bu Sébikotane euh, ba tàbbi ci kaso bu Rebeuss bu mujjee ci lalu hôpital mu di hôpital principal bu Ndakaaru nekk nag ci guddi yoo xamante ne wax dëgg yàlla yaramam sooxe na lool démb ci heure bii. Euh, ñu jox ko li nga xamante ne moom moo di liberté provisoire bu ànd ak contrôle judiciaire balaa ñuy tàmbali nag ma bëggoon dugg ci li nga xamante ne moom mooy solo su waxtaan wi mooy dikk ci liberté provisoire boobule ak li nga xamante ne bii moom bi ma dellu siwaat ak yéen ñu waxtaan ci li nga xamante ne bii moom mooy bàyyi négandiku bi ñu ko bàyyi. tout d'abord balaa may yi dama bëggoon jibal ay kàddu cant ak ay kàddu remerciement jëmale ko ci sénégalais yi d'abord sénégalais yi nga xamante ne ñi ngi nekk à travers le monde entier c'est pas que Sénégal kese dafa am ay sénégalais yoo xamante ne dañu nekk à travers le monde entier bi ñu jàppee Pape Alé Niang depuis le 6 novembre ba fii ñuy waxee ak yéen sonn ñu tàyyiwuñu saay suñu xëyee ñi ngi lay woo ñi ngi lay seet ñi ngi lay envoyé ay message de partout pour di nemmeeku ki nga xamante ne moo di Pape Alé pour di nemmeeku euh, li nga xamante ni bi moom moo di euh, wér-gu-yaramu Pape Alé Niang cofeel googu nag ngeen am jëmale ko ci Pape Alé moom tamit cofeel gu ñu tollu la am ci Sénégal ak ñi dëkkee Sénégal gannaaw sénégalais yi nga xamante ne ñoo defoon yitte ak Pastef nekk fépp ci àdduna di wax ne Pape Alé li ñu ko nekk di def jaay doole la dafa am ñeneen ñoo xamante ne aussi dafa bokk ak ñoom liggéey mooy corporation bi mu nekk di ci liggéey mooy taskatu xibaar mu am ci yenn ci ay taskatu xibaar yoo xamante ne bi mbir yi tàmbalee ba fii ñu yegg si tey musuñu varier seen position musuñu wax naka sodul noonu jëmale ko ci Pape Alé Niang saa yi suñu génnee moo xam ci support bu ñu mën a waxee ak médium bu ñu mën a waxee li ñuy wax mooy manifester seen solidarité à l'endroit de Pape Alé ñu bari nag dañuy wax solidarité corporative au-delà de ça ñooñu dañoo am ay convictions yu wér gëm ne Pape Alé dañ ko tooñ jaay ko doole dugal ko ci kaso ba taxoon ñu amal xeex bu sax dàq boo xamante ne xeex la aussi bu amul jiixi jaaxa ci ay xelu nit ne dañuy supporter ki nga xamante ne moo di Pape Alé ci li mu nekkoon muy tolof tolof parce que dañu jàpp na ñoom dañ ko jaay doole dugal ko ci kaso muy ñenn ci journaliste yi nga xamante ne ñoo nekkoon ci xeex bi te ñu ràññee leen bu baax gis nañ ci waa CAP taxawaay bu am solo buñ ci taxaw ñu tënku ci yeneen kuréel yi nekk ci CAP taxawaay bu am solo biñ ci taxaw ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax waaye nag jaajëfal ñenn ñoo xamante ne kenn du leen gis kenn du leen dégg te ñu nekkoon ci liggéey bu mucc ayib ngir fexe ba Pape Alé Niang jotaat boppam jotaat libertéem dellu ci liggéeyam dellu ci njabootam képp koo xamante ne amoon nga yéene muy bu rafet jëmale ci Pape Alé ngir mu jotaat ci njabootam jotaat ci boppam mënuñu lu dul sant la gërëm la ngërëm goo xamante ne am na tàmbali waaye amul app képp koo xamante ne aussi danga bokk ak moom corporation boobu waxee woon naka solul noonu wala amoon position boo xamante ne position bu bu ñagas la jëm ci moom seen opinion la ñu nangul leen ko mais ku xam Pape Alé xam na il fait pas partie des journalistes soumis il y a une presse presse boo xamante ne c'est une presse couchée soumise a ce régime de Macky nga xamante ne ñoom bi ñu jàppee Pape Alé lépp lu ñu mënoon ci lu ñaaw wala lépp lu ñu mënoon pour jéem ko tëgg pour que Pape Alé gën a nekk ci ay jafe-jafe saa yi suñu xëyee suba ngoon ñu ngi ci woon mais dama leen di faral di wax ne leen parfois nit ñi li ñuy fàtte mooy j'ai comme l'impression que bu ñuy am seen ay yéene di am seen ay mébét dañuy fàtte ne yàlla suñu boroom mooy boroom dogal yi ba tax na ñu bari dans cette presse sénégalaise ay patron de presse ak ay journalistes lu ne def nañ ko lu ne wax nañ ko pour jéem a tilimal deru Pape Alé ci penc mi waaye nag ca booba dafa fekk ne man dam leen waxoon ne leen Pape Alé lu ko waay wax dinañu taxaw weddi loolu sànni ko ca xaj ndax am ngeen droit am njëg am ngeen droit nekk une presse couchée am ngeen droit nekk des larbins mais c'est votre droit dañ leen ko nangul mais Pape Alé Niang amul njëg Pape Alé Niang soumettrewul boppam Pape Alé Niang ne fait pas du larbinisme donc du coup cette presse là dama leen buggoon wax ne leen Pape Alé bi ngeen yéene woon bàmmeel Pape Alé bi ngeen yéene woon du jug ci lalu hôpital yàlla dimbali na ko ci kàttanam ak mbaaxam am na liberté provisoire bu ànd ak contrôle judiciaire aujourd'hui moi je pense que suñu waxtaan mbokk yi li ci ëpp solo dama buggoon ñu tënk ko ci liberté provisoire bi nga xamante ne Pape am na ko mu ànd ak contrôle judiciaire xam nga ñu bari dañuy ci Sénégal dañuy am léeg-léeg tey xel ci justice nu muy doxee mais ma fàttali nel ne Pape Alé Niang durant ces années yii ñu génn mi ngi ci réew mi am fi njaboot dëkk ci réew mi di yeewoo ci réew mi am entreprise am ci réew mi di liggéey ngeen jàpp ko ci loo xamante ne naka sadul noonu la tooñ ko dugal ko ci kaso ba mu neex leen ngeen jox ko liberté provisoire bu ànd ak li nga xamante ne moo di contrôle judiciaire mbokk yi ma bëggoon ñu taxaw justement ci liberté provisoire bu ànd ak contrôle judiciaire parce que il est important que nit ñi nga xamante ne dañoo xëy rek dégg ne Pape Alé am na liberté provisoire ñu faram fàcceel leen li nga xamante ne bii mooy liberté provisoire bi Pape Alé am ak contrôle judiciaire biñ ci toftal lañ lay wundu parce que nag dafa am ay ponk ñeenti ponk yoo xamante ne moo tënku ci contrôle judiciaire bi nga xamante ne moom la ñu jox Pape Alé Niang et c'est très important ñu expliquer ko Sénégalais yi détail par détail pour que ñu xam ne Pape Alé naam am na liberté provisoire mais man dama jàpp ne ba tey mu ngi ci kaso dinaa leen ko expliquer ci kanam parce que Pape Alé Niang taskatu xibaar la taskatu xibaar ñaari moyen de travail la am mooy plumam ak baatam wax ñu dégg ko wala bind ñu liir ko du coup man je pense que aujourd'hui Pape Alé Niang bu ñu ko joxee liberté provisoire parce que il faut qu'on revienne un peu sur les détails jox ko liberté provisoire ba noppi ci biir liberté provisoire boobule mbokk yi ñu tënk ci ñeenti poñ ci li nga xamante ne moo di contrôle judiciaire bi poñ bi ci njëkk ci contrôle judiciaire bi ñu gàll ci loosam mooy ñu ne ko émargement le premier vendredi de chaque mois cela veut dire que Pape Alé am na liberté provisoire mooy ajjuma bu njëkk ci weer wi dafa war a ñëw signer pour wane ne mi ngi ci réew mi loolu benn la beneen bi ci tegu muy ñaareelu poñ bi ñu ne ko remise du passeport dans un délai d'une semaine cela veut dire que passeport bi nga xamante ne daf ko war di tukkee fileeg une semaine à dater d'hier daf ko war a ñëw jébbal ko justice loolu mooy ñaareelu poñ bi ñu tënk ci ci contrôle judiciaire bi ñetteelu poñ bi ñu ne ko interdiction de sortie du territoire national amuloo droit yow Pape Alé Niang génn réew mi ñeenteelu poñe bi nga xamante ne moo tënk ci contrôle judiciaire bi ñu ne ko s'abstenir d'aborder de manière directe ou indirecte en public ou par tout moyen de diffusion la présente procédure en cours maanaam dañ la tere nga wax ci ci ci loo xamante ne day jóge yow ci sa kàddu nit di ko dégg wala nga jaar ci beneen moyen maanaam prox ndoll pour wax ci dossier bi nga xamante ne moo la tënk ci wàllu justice loolu nag neppee nekk euh, li tubaab di woowee euh, une épée Damoclès qui plane sur la tête de Pape Alé mooy ne que Pape Alé pour ñu revenir un peu en arrière dañu ko ndar ci lu dul yoon moom ci ay conviction mu gëm ne liñ koy def jaay doole la mu xeex ak état di xeex ak état ba tëdd ci lalu hôpital continuer di xeex ak état ba ñu demee ba xamuñu ne am amuñu pexe lenn rek lañ mën a def mooy jox ko li nga xamante ne moom moo di liberté provisoire yaa xayti liberté provisoire képp mënoon nañ cee yam ak moom ndax Pape yàlla Niang du génn réew mi di daw li mu am yëpp ci réew mi la nekk ay waajuram ñu ngi ci réew mi soxnaam ma ngi ci réew mi famem mi ngi ci réew mi kon Pape Alé Niang soxlawul woon contrôle judiciaire bu koy gàll bu bu diisee nii ak i poñ pour ñu gàll ko ci loosom pour que tout simplement continuer di planer une épée Damoclès sur sa tête au cas où mu génn sax faju ba wér ba war a delluwaat ci liggéeyam bu waxee lenn loo xamante ne dafa dafa jege ak réew mi ñu jëliwaat ko indi parce que il est tout sous contrôle judiciaire mais man damay laaj <laughs> euh, bu fekkee ne mbokk yi lii nii lu jaadu la ngeen indi ci ay tontu yéen ñi nga xamante ne yéen ñuy seetaan yéen ñi nga xamante ne yéen la ñuy weccanteel xalaat ci li xew parce que dafa c'est important de clarifier certaines choses l'état actuelle logique bi ñu nekkoon ñoom mooy logique gu tëj gémmiñu Pape Alé dootul wax ci réew mi dootul wax ci li aajoog mbiru réew mi ci logique boobu lañu nekk wàccaguñu ko amaana am na liberté provisoire et que liberté provisoire boobu ma leen di fàttali ne leen Pape ba fi fi may wax ak yéen ñi tey génnagul ci hôpital principal am na liberté provisoire mais mënul sax génn dem ci këram ci njabootam parce que loof na loof boo xamante ne il est sous observation médicale ñu di ko faj est-ce que vous êtes en train d'imaginer un peu cette cruauté bi nga xamante ne ce régime là teg nañ ko Pape Alé ba mu toll fi mu toll et il continue un peu à travers le, le, le, la justice de manipuler pour ndar képp ko ba dootul wax ci réew mi mais loolu mënul nekk je suis désolé de le dire mais mënul nekk si inadmissible Pape Alé Niang fi mu toll nii talul jokkoo talul wax li mu tal mooy faju faju ba wér mais Pape Alé mbokk yi jàpp ngeen ne ni mu mel ci réew mi ak taskatu xibaar bi mu doon bu fajoo ba wér fileeg jamono yii di ñëw ci kanam est-ce amul droit delluwaat ci liggéeyam delluwaat di liggéey liggéey bi nga xamante ne moom la ko sénégalais yi xamee ba naw ko mooy nekk taskatu xibaar boo xamante ne day liggéey ci di càmbar ay mbir ci réew mi di ko leeralal sénégalais yi mais taskatu xibaar boo ne ko wax ci réew mi wala dootoo bind ci réew mi mooy ne ko moom rey nga ko rek muy dund ki nga xamante ne moom wax ak bind mooy tax mu am lu mu dundalee njabootam boo ko ko xañee mooy rey nga ko c'est juste pour vous montrer à quel niveau le régime la peut aller pour essayer de de d'humilier une personne mbokk yi est-ce que vous êtes en train d'imaginer que Pape Alé Niang di di génn réew mi te am lépp ci réew mi controle judiciaire boo xamante ne dañ lay tënk ci ay poñ yoo xamante ne yow maanaam da am nga liberté provisoire mais yaa ngi ci benn prison à ciel ouvert benn prison à ciel ouvert mën nga dem gisanteeg sa njaboot mën nga génn mën nga faju mën nga def lu nekk mais ah attention boo jibalee ay kàddu rek yoo xamante ne laalewul sax ak dossier bi ñu lay toppee bu neexul procureur rek procureur mun ne la ah yow de sous contrôle judiciaire nga nekkoon damay dugalaat la ci kaso comme ni niñ ko defee woon euh, la dernière fois te teguwul ci dara loo xamante ne dëgg la teguwul ci dara loo xamante ne dafa lalu ak ak ak dëgg ci coobare nit lay lay lalu donc il est important que sénégalais ñu comprendre li nga xamante ne moom moo nekk di xew avec ce régime là contre Pape Alé ñoom dañu am projet seen projet boobu ñu amoon ba léegi ci lañu ñu nekk di ko poursuivre mooy fexe ba Pape Alé dootul jibal kàddu ci réew mi ñu koy dégg waaye nag ma buggoon leen wax lu leer ngeen xam ko mooy <laughs> Pape Alé Niang a pris le soin de travailler sur plus de quarante dossiers avec soixante journalistes d'investigation qui sont un peu partout dans le monde kuy tëru kuy teggee ci ay dama ne kuy tëru kuy teggee ci ay parce que nag dañu nekk ci réew moo xamante ne nit ñi dañu am justice di ko jël di ko dóor ci kaw nit ñi de façon gratuite te dara du leen ci fekk et c'est pas normal du tout c'est pas normal du tout Pape Alé Niang pourrait bénéficier tout simplement d'une liberté provisoire point mais assortie d'un contrôle judiciaire pourquoi c'est pas normal di tout parce que tout simplement bëgg ngeen ko ndar képp fenn ba dootul wax mais c'est pas possible Papa Alé Niang bu jugee ci li mu nekk ba tal ba jotaat jaramam il va continuer à travailler dans ce pays il va continuer à à à à à dire des choses concernant la gestion de ce pays là parce que réew mi tamit yaa xayti ñoom moomuñu ko dañu leen ko dénk te ñu leen ko dénk askan wi la askan woowu dañu soxla xam nan la ñuy doxalee réew mi moom ci loolu lay liggéey. suba ak ngoon guddeeg bëccëg donc léegi loolu boo leen ko bëggee xañ mais le droit à l'information ngeen bëgg a askan wi te c'est important que nit ñi xam ko c'est important aussi que ñu leeral ko nit ñi mais Pape Alé Niang a travaillé sur beaucoup de dossiers en étroite collaboration avec des journalistes d'investigation un peu partout dans le monde te loolu ci kanam di ngeen ci xam dara parce que Pape Alé Niang du ku ñuy tër di ku ñuy tër di ko rendi nii gratuitement pour pourquoi pour yi ñoo soxla Pape Alé Niang sénégalais yi ñoo soxla Pape Alé Niang di wéy di nekk ci réew mi parce que sénégalais yi ñoo jàpp ne liggéey bi muy def dafa am solo ci réew mi amal solo ñi dëkkee réew mi amaana mën naa bañ a neex ñi nga xamante ne ñoo yor nguur mën naa bañ a arranger ni ni yor nguur mais je pense que Pape Alé Niang ce qu'il est en train de faire c'est quelque chose de fondamental pour les Sénégalais Sénégalais yi dañu soxla am ay information ci ñu réew mi di doxee yorin bi ñu yor réew mi dañ ci soxla am ay information te Pape Alé Niang ci logique gu gunge Sénégalais yi pour que ñu am maximum d'informations par rapport à la gestion de ce pays-là ci loolu la nekkoon muy sacrifier addunaam sacrifier life am li ko dal tey ba ba mu tëdd ci lalu hôpital dara yóbbewu ko lu dul bëgg réew mi képp bëgg réew mi ak bëgg justement partager les informations qui concernent la gestion de ce pays-là avec les Sénégalais de façon juste et vraie lii kese la du leneen donc je pense que dañu nekk ci état bu nga xamante ne ñu am ay doxalin xëy na am projet parce que ñëpp ñu ngi gis nag depuis un certain moment donné les responsables politiques du parti au pouvoir fu ne ña fay dem di investir seen seen seen candidat mais loolu ci suñu kanam la nekk loolu suñu kanam la nekk parce que il faut ngeen comprendre benn affaire réew mi kenn moomu ko 17 millions de sénégalais ñoo bokk réew mi ku ne am ci cër am ci wàll am ci sa gis-gis ku ne am droit taxaw laaj réew mi boo matalee condition yi ñuy laajee réew ku ne am droit ni dama bëgg ku ne am droit bokk ci joŋante pour laaj réew mi donc je pense que il faut que nit ñi comprendre que ne ñi war a bokk nañ bokk ñi warul bokk bu ñu bokk un point c'est tout lii la mais nag vous êtes libre dale où vous voulez investir qui vous voulez gaspiller autant d'argent pour pour faire semblant d'investir quelqu'un mais nag sénégalais si seen bopp ñoom ñooy tànn sénégalais yi si seen bopp ñooy xool ki leen wu ki ñu wóolu ñu jox ko réew mi de façon démocratique parce que Sénégal réew mu ñu naw la ci doxalinam ci démocratie mais durant ces dernières années ku waxal yàlla xam ne démocratie boobu dañ ko salfaañe liberté doomu aadama yi dañ leen salfaañe les détenus politiques yi nekk ci kaso yi ñu jàpp jàpp ci ay affaires yoo xamante ne kenn mënu laa wax lu mu doon Amidia Fadilou Keita Papito Kara Oumed Diagne ñooñu seen doom yi ak seen njaboot yi dañ leen soxla lay war a suuli bàyyi leen leen ñu ñibbi seeni kër le Sénégal n'a pas besoin de cette tension là tension bi nekk ci réew mi dafa bëri bàyyi leen nit ñi ñu free bàyyi leen nit ñi ñu wax seen xalaat bàyyi leen nit ñi ñu am audace wax seen xalaat ci réew mi tout en respectant les lois et les règlements de ce pays parce que ñun ñëpp dañu war a nekk ay républicains ay républicain yu wér di wax ci réew mi de façon correcte mais de façon ferme parce que réew mi kenn moomu ko dañ ko jël dénk ko ay nit ne leen yoreel leen ñu liñ leen dénk nag ñun dañ ci am vision li leen dénk dañ ci war a am gis-gis ba xam mi ngi jaar yoon wala jaarul yoon ci fànn yëpp nag ci fànn yëpp nit ñi dañu am droit citoyen yi dañu am droit am benn gis-gis ci doxalinu réew mi parce que sénégalais yi ñoom ñooy jël seeni fukk ki seeni juróom dajale ko ba mu mat def ko ci gafaga nguur ne ko yoral ñu mais sénégalais boobu yaa xayti am na droit am gis-gisam ci réew mi am na droit gis-gisam ci réew mi ni muy doxee mais boo amee sa xalaat ñu ne la doo ko fi waxee boo amee sa gis-gis ci réew mi ñu ne la doo ko fi waxee boo àndul ak nguur boo sa ginaar sax bu co rombee dugub bi jàmbur cof ko yàgg ginaar gi la ñuy boole dóor mandat de dépôt nga dem kaso mais quand même c'est trop nañu waxante dëgg nañu waxante dëgg honnêtement nañu waxante dëgg li nekk di xew ci réew mi il faut que mu wàcc. parce que nag c'est pas parce que da nga yor nguur am nga possibilité door nit mandat de dépôt wa bu ma waxee ñu may wax ay justice boo xamante ne dafa am indépendance d'accord dafa am indépendance mais comment pouvez-vous imaginer justice bu am indépendance ay nit dem toog ak njiitu réew mi ci palais ne ko diw dañoo bëgg mu génn mu ne leen def leen demande de liberté provisoire ma ma appuyer ko et après vous venez me dire que l'exécutif ne s'immisce pas dans dans dans dans dans dans dans dans la justice. yi nag ñoo war a jël seen responsabilité parce que wolof day faral di wax ne mbajum kanam boroom ma koy fajal boppam mbajum kanam boroom ma koy fajal boppam lii xew ci réew mi yëpp umpul kenn umpul sénégalais yi dëkkee réew mi donc i yooyu nag ñu war a góorgóorlu am seen fulla am seen fayda taxaw jonn c'est ça la réalité je pense que tey ñu guddal parce que j'avais juste envie de revenir un peu sur des détails par rapport ak li nga xamante ne moo di contrôle judiciaire bi ñu tënk ci Pape Alé Niang gàll ko ci loosam toftal ko ci liberté provisoire bi sénégalais yi ñuy seetaan ak sénégalais yi ñuy topp un peu partout à travers le monde xam lan moo xew parce que dégg ne Pape Alé am na liberté nga jàpp ne satisfaction totale la waaye ban xeetu liberte la ban xeetu liberté la ban xeetu liberté la parce que liberté boo xamante ne yow dañu lay tënk ne la yow maanaam réew mi mënoo koo génn ñu ne déeta waaye ñu ne la ajuma bu njëkk ci weer wi da ngay ñëw xaatim signé wax na yaa ngi ci réew mi ñu ne foofu nga yem ñu ne la déedéet sa passeport bi nga xamante ne moo lay permettre nga génn réewum tukki da ngay ñëw jox ñu ko ñun ñu ne la foofu nga yem nga ñuul déedéet ñu ne la yow Pape Alé Niang bi bii nga xamante ne moo la lié ak justice amoo droit yow sa personnellement jibal ci kàddu mu jóge ci yow wala nga jaar ci beneen prof ndoll wax ci ci dossier bi mais loolu bu dul prison lan la ci taskatu xibaar ceci signifie tout simplement que même Pape Alé Niang aujourd'hui bu génnoon fi mu nekk ba am wér yaram am tan dem toog ci biir njabootam commencé liggéeyam gis loo xamante ne taqewul ak laayewul ak dossier bi ñu koy toppee mu wax ci te arrangé wul état neexul état état mën naa laxasu ci contrôle judiciaire boobu dem jëliwaat ko dugal ko kaso c'est pour cela que ma leen di wax na leen mbokk yi le combat na fait que commencer parce que Pape Alé Niang doit être totalement wéy di def li nga xamante ne moo di liggéeyam ci réew mi parce que nag bu leen fàtte am na ñoo fi xamante ne dañu leen épingler ci ay rapport yu corps des contrôles yu ci réew mi def te ba fii ñuy wax ak def na ay at mujjul fenn mujjul fenn laa la wax ay nit yoo xamante ne dañoo fare ak nguur ay rapport corps corps des contrôles ndar kepp leen ci yorin bu sellul ñu waroon jël loolu yóbbu ko fi nga xamante ne bii moom moo di fi mbaxana doonee benn ñu setal seen der amaana ñoo def amaana defuñu waaye askan wi gindiku ci li nga xamante ne bii moom lañu def ak li ñu deful mais rapport yooyu ba léegi mujjul fenn Pape Alé Niang jëlul dërëmu état deful lenn luy nakasadul noonu nga bëgg koo jox liberté provisoire ba pare gàll ci loo sam contrôle judiciaire maanaam mu ngi nii de épée baa ngi nii ci sa kaw bopp waxal la warul wax rek ñu jëlaat la dugal ci kaso dama ne le combat ne fait que commencer et nous allons nous battre jusqu'au bout pour que Pape Alé Niang am liberté total parce que ñi ko ñi nekk ci réew mi def ay njombe yu dul jeex te am liberté total kenn waxu leen dara ñuy dem di dikk gëmu gënuñu Pape Alé ci ndey gënuñu ko ci bàyyi te Pape Alé Niang doit être libre mais totalement faju continuer di def liggéeyam ci réew mi lii mooy dëgg xeex bi nag dinañ ko wéel d'ailleurs sax ñu ngi koy wéyal bu baax a baax a baax sur le plan international parce que nag bu leen fàtte ne Sénégal dafa bokk ci ay organismes yu nekk un peu partout à travers le monde ratifier ay convention organisation yooyu di xeex ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama yu bari dinañ ko yëg yu bari yëg nañ ko it xeex bi dinañ ko wéyal sur le plan international ba Pape Alé am jàmm am liberté mais totale parce que tout simplement je pense que aujourd'hui ñoom seen yéene mooy ñu wéyal li nga xamante ne moo di ndar kepp bi ñu ndar kepp Pape ci jaay doole bi ñu nekk di ko jaay doole ñu wéel ko ci beneen anam waaye ñu nit dinañ wéel xeex bi ci beneen anam parce que am na loo xamante ne xeex la bu nit ñi di gis mu fës am na loo xamante ne xeexu suuf la nit di ko gis te loolu aussi li ciy tooy ci état wu Sénégal lay jóge parce que nag bu ngeen amee seetlu tuuti war ngeen xam ne à travers cette affaire Pape Alé Niang l'image du Sénégal s'est détériorée te jaru ko woon jaru ko woon ah. bu ñu demee ba tey jii ay organisation nekk États-Unis jël Sénégal dugal ko ci liste rouge wane na réew la wu moo xamante ne dañ fay xoññañal di fa toroxal ay journaliste te Sénégal di lëkkaloo ak États-Unis ci yu baree bari je pense que loolu image yu Sénégal moo si yàqu te ñun bëgguñu ko mais malheureusement noonu lay demee parce que mënuloo nekk ci sa biir réew di def naka sudul noonu ba pare nit ñi ci kaw duñ ko nit ko reeteet ci kaw organisation yëg ko ñëpp koy yëg te nag am na liggéey bu ama am solo bu ñu nekk di ci def te fileeg jamono ci kanam tuuti di ngeen ci xam dara parce que nag nit bu yoree état yor nguur yor doole te te te te te wul benn yoon jël doole jooju yëpp di ko salfaañe ci kaw ay nit mais ñun aussi pexe yi ñu am ak lijjanti yi ñu am pour ñeneen ñoo xamante ne yéen da ngeen fay dem di wax di yelwaan ñu leen di may ñu wax leen li xew ci réew mi dëgg-dëgg ci loolu rek lañ nekk. parce que nag jàpp Pape Alé Niang bi bu ngeen yaakaaree ne di ngeen ko jàpp dugal ko ci kaso teg ko métit bi ngeen ko teg ak jafe-jafe yi ngeen ko teg ba mujjee ci lalu hôpital te après loolu yëpp sedd ci yéen wala sedd ci nguuru Sénégal da ngeen nax seen bopp. lépp nag kenn mënu ko wax mais la moindre des choses que je peux vous dire mooy liberté provisoire bu ànd ak contrôle judiciaire limal naa leen ponk yi nga xamante ne moo ndar kepp moo tënk maanaam contrôle judiciaire boobu nga xamante ne moom ci la nekk donc ce qui signifie que Pape Alé ba tey xoñoñal biñ koy def ñu ngi wéy di ko ko def te ñun nag dina ñu wéy tamit di wéyal xeex bi parce que dafa war a am liberté totale comme tout bon sénégalais encore une fois nag mbokk yi euh, ma leen di gërëm bu baax di jeexal ak ay kàddu cant sénégalais yépp nga xamante ne fépp lañ nekk ci àdduna bi di leen sant bu baax a baax a baax ci seen taxawaay bu rafet jëm ci Pape Alé di sant ñëpp ñi nga xamante ne ay nitu dëgg lañu te ay nit ñu dëggu lañu moo xam ay artistes lañ yu fësal c'est l'occasion de remercier la légende Oasis Diop ci position bi nga xamante ne am na ko par rapport ak cette affaire Pape Alé ndongo di daara ji famille yi wax dëgg yàlla ñu rafetlu bu baax nag position yi nga xamante ne jël nañ ko parce que gis nga Sénégal aussi réew day toll foo xamante ne nit ñi ak position boo mënti am boo gisee injustice ñu koy dóor di ko dóor ci kaw nit da ngay jël position position nag courage moo koy jël position nag honnêteté moo koy jël position tamit nit ku loyal moo koy jël donc ma bëggoon sant ñëpp ñi nga xamante ne de près ou de loin bind nañ sans oublier Felwine Sarr mu bind lu am solo wax xalaatam intellectuel de haut niveau bu kenn dootul na table mu bind lu am solo jëmale ko ci li nga xamante ne mooy jàpp gi ñu jàpp Pape donc encore une fois c'est l'occasion de remercier tout le monde mënuñu sax di lim ay nit mais bu ñu limee dañuy juum mais quand même dafa am nit ñoo xamante ne dafa am lu ñu représenter ci réew mi bu ñu jëlee position te position boobu ñu mënoon koo jël c'est de les remercier vivement di leen wax ne nag réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk lu ko defar mooy suñu yitte lu defar réew mi mooy suñu yitte mooy li nga xamante ne cofe wax dëgg yàlla euh, mooy suñu mooy moo nekk suñu xol Sénégal jiitu jëm ca kanam defaru mais nag defaru ci kaw dëgg defaru ci kaw ñu bàyyi di jaay nit ñi doole maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax amoon mbégte ak contentement bu yaatu dikkaat ak di wax ne que daal Pape Alé am na liberté provisoire mais ngeen xamee ne liberté provisoire boobu contrôle judiciaire bi mu àndal loolu moo ko lal fi ne nii nag Pape Alé Niang talul jokkoo talul wax ak kenn li mu tal mooy wér gu yaramam waaye bu ñu demee ba lii yëpp passé ba yàlla may ko boppam. xëy na dina am jamono mu génn wax ak sénégalais yi euh, loolu nag euh, moom ci moom la aajo ak calendrier ak responsabilité ñun nag li ñu war a def mooy gindi askan wi ci li xew dinañ ko wuyal di ko def te comme li ma leen ko waxee woon wax dëgg yàlla le combat continue euh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp wax dëgg yàlla ku lim da ngay juum moo tax wax dëgg yàlla ma bëggoon ko tënk fii rek yamale ko fii di wax ne daal euh, ñëpp ñi nga xamante ne ñooy ay sénégalais épris de justice ñu xam ne réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk bu baaxee ñun la baaxal bu yàqoo ñun la yàqul donc yàlla nañu yàlla may jàmm may ñu tawféex euh, lépp lu nga xamante ne ñi ngi koy yaakaar ci réew mi yàlla bu mu am ci réew mi parce que nag réew mi ñu wax ko ñu bàkk bañ ko wax nekk na ci tension bu nga xamante ne ñi ngi ñaan yàlla mu mujjee ci jàmm mais nag day mujjee ci jàmm ci kaw ñi ko yor bëgg jàmm maa leen di sant di leen gërëm di leen dig daje ci beneen waxtaan ndem sob na yàlla suñu borom jërë ngeen jëf